asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan euh, tey nag dañu toog ak ki nga xam ne moo di Thierno Hamdou Rabby Wane euh, ñuy waajal nag bës bu nga xamante ni bësub cant la muy bés bu màgg di am fa nga xam ne moo di Pikine di vendredi le 23 euh, bés boobu nag di bés bu xamante ni bésub cant la looloo waral tey ñu toog fii ngir fas yéene waxtaane bés boobu ndaxte dafa am kilifa gu màgg gu fa war a ñëw muy Thierno Abdourahmane Bari Euh, di nga xa di xalifa euh, fi nga xam ne moo di boggal euh, kon bu ñu def lu dul bàyyi kàddu gi ak ki nga xam ne nii moom moo di Thierno mu daal di ci sànni ay kàddu avant ñu ñëw ci ki nga xamante ni tey moo toog fii nii bisimilah Thierno. ni sant xamal li la xam bi loo xam li la yàlla defal. Mm-hmm. moo lay yëg loo li la yàlla defal. yëg boobu ngay yëg nag moo la validé sant bi defe naa ne nag képp kuy sant moom bu la yàlla mayee nga xamal xamale la Cerno Abdourahmane Bari bu boggal loolu rek day na sant waxuma la nag Cerno Abdourahmane Bari jóge ba boggal jéggi dëkk yi ñu jéggi yëpp ba yegg si Ndakaaru fas yéene ñëw fekki si ñu fële ci Pikine muy le vingt-trois juin incha allah ajuma bi di ñëw defe naa ni loolu rek xam ko dama ni doy na sant waaye léegi ba nga ko xamee ba pare yàlla lal la mu jóge fa mu ne di boggal fa nga xam ne nee na képp koo xam ne yàlla nartu faj sa aajo doo fa yegg si moom mu jóg foofu nag ak barke boobu yëpp ñëw di ñu fekk ci fële ci Pikine dama ne Pikine na ngeen fexe ba xam li ngeen am lan la ndax boo amee lu yombul te xamoo ko lu yombul loolu ngir mu mën laa jëriñ du yomb ndax yow yaa xamul li nga am waaye Thierno Abdourahmane Bari mii man de fukki at ak benn ren ba may dajeeg moom ci Paris ma ne leen tey la tey fii ci Paris la lépp di pare gars yi jàppoon ne dama doon woy waaye ku xam pikin xam lii xew pikin ak li xew pikin xam nga ne loolu du way te it pikin xam na ni bi mu fa tegee tànkam ak léegi ci fukki at benn yi lan moo fa soppeeku kon pikin ñëpp la ñu woo bàyyiwuñu kenn duñ fi nekk sax di lim ay quartier jidde caare gaw nag moom mhm. alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nañ xam ne bés boobu seen bés la le 23 mhm. la ñuy xam ni li xale yi di woy naan lépp dëgg la mhm. ñu xam ne axanka yi lépp dëgg la ndax dëgg mooy yàlla yàlla mooy dëgg dëgg la <laughs> euh, Thierno euh, yàlla suñu borom moo ne ñaan leen ma may leen sant leen ma dool leen lan moo tax ñu jël bés bi rek dëppee ko bésu cat mooy li ma la wax xam li ma yàlla defal man damaa ñaan yàlla mu may ma mu yëgal mi may yàlla mun na la may te du la yëgal ni may na la man nag yàlla def maa may yëgal ni mi may na ma ma koy sant te nag kuy sant ku ne di sant di sant ba nga yeewu suba nga jàkkaarloog hamdu rabbi wan nga war a xam ne nag yegg nga terminé maa war a sant ndax maay sant ci boppam alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Thierno Abdou Rabbi woon jërëjëf ñaan ca teelo wallaay fa aajo dellu see ay maqaayam waa de bilaay faj fa aajo dellu see ay maqaay waa wallaay suba teel ma ñaani baas gal ga teel gal ga teel cer na bare ak nu doy ay gal leen billaay cer na bare wiiru waa yu sare ay wallaay bàyyi suura lampu diine mën ma euh, bu ko defee rek dañuy jox kaddu gi ki nga xam ne nii moo di sëriñ Abdourahmane Gueye euh, bu ko defee moom itam mu sànni ci ay kaddu ana nan la ñuy waajale bës boobu nga xamante ni bésub cant la waaw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, ñu ngi toog fii tey ci sunu ëttu sëriñ ah, di sunu soppee di Cerno Abdourahmane Bari bu boggal ibnu Abdourahmane Abdourahmane di wax ak yéen bis la boo xam ne bisu sant yàlla la ah, kii xewle kenn la ci nitu yàlla yi kenn la ci géewu yàlla yi kenn la ci ñi nga xamante ni wax allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah muy sunu xarit di sunu baay di sunu sëriñ. di sunu lépp di Thierno Mouhamadou Rabi wan. mu jël bis bi jagleelaat ko yàlla lépp di yàlla ndax ko bëgg ci dara dara da nga dara. ca dara ji nag moom mooy yàlla. ca nag ku làmb daj li nga xam ne li nga daj. ah moom mooy ki nga xam ne mooy xul wallaahu ahad. kon bu toogee fii ci bisu aljuma ci kër Thierno Abdourahmane Bari. bu boggal sunu sëriñ sunu baay sunu soppe. Mm-hmm. yor kàddoom mu toog nii mm-hmm. nga xam ne toogal na fi xadara yi nga xam ne ñooy xadara mag ñi mm-hmm. sa kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick sa kër maam Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu kër maam Borom Touba radiallahu taala anhu kër maam Seydina Limaamu radiallahu taala anhu kër Cheikh na Saad Bou Abi radiallahu taala anhu mu toog moom mii Cerno Hamdou Rabbi wat daal di jël léppam jox ko Cerno Abdourahmane Bari le 23 ca Pékin le 23 di bis boo xamante ni kuy waayam kuy wan yan sa gox moo tëkkul mhm. le 23 daanaka xel yi xol yi koo ci dam muy daj rek mhm. le 23 moo ne ca bis ba mhm. le 23 moo ne ca xol ba diggante Pikine Guédiawaye ak environ Dakar ak li wër ak Sénégal yëpp benn bis la muy le 23 ca na xam dara bi wat ñiy waaj bis boobu nag insha allahu taala wax ni ñun ñëpp nanu xëy ku xëy bul dëkkee fenn huit heures nanu fekk ñun ñëpp Pikine ñu war a jàkkaarloo ak góor bu tedd ji mu jàkkaarloo góor yàlla yi ndax sax sëriñ Mouhamadou Mansour borom daara ji moo daan wax ne ku bëgg ci dara ji dara hmm. dañ ci def dara dara ji nag bu la jarul dara dara doo ci am dara hmm. te na wax ne léegi lépp mu dëgg la kon la ñuy xam ne lépp dëgg la bis boobu la hmm. ndax yàlla mooy dëgg te dëgg mooy yàlla kon bisam boobu ñu ngi ciy woo Sénégal yëpp dox ni El Hadj Abdourahmane Gueye l'ambassadeur de la paix Cerno Abdourahmane bari di fa ñëw Ibnu Abdourahmane ci kan lay ñëw ci nitu yàlla bu baax bii kan lay ñëw borom xol bu laabi bii kan lay ñëw nit ku silwi kan lay ñëw mooy ki nga xam ne moom moo boole ci lépp di benn ci moom. Mhm. kan lay ñëw bi nga xam ne le fédérateur. Mhm. kan lay ñëw l'homme social. Mhm. kan lay ñëw l'homme éloquence. kan lay ñëw nit ki nga xam ne sa détermination et son engagement vers le prophète Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kan lay ñëw soppi Cheikh na Tidiane bi kan lay ñëw góor yàlla bi nga xam ne foo seen kan bu rafet ba borom jotu xaalis boobu bul ko laa kenn moo jëmi yàlla ji. moom mi ngi ko jox kii nga xam ni góor yàlla bu sell bi bu yiw mu delloo lépp Abdourahmane ibnu abdourahman borom bokkal bis boobu nag insha allahu taala ci la taal daay gi daay gi nag boo ko déggee mooy ku bëgg ci dara ji bis boobu ci ngay ñëw fa la joxee li nga xamante ni moom mooy code secret bi mhm. code bi nag film bi bis boobu lañ koy décroché. ndax wifi bi mën nga ñëw di euh, connecté deni dugg nga ci biir signal bi. Mhm. muy signalé wu fekk joxoo yow bi. code bi mhm. koy joxe ci kan la koy jële ci Ibnu Abdourahmane mhm. la l'ambassade euh, de la paix kon bokk jullit yi bokk taalibé yi bés baa ngi noonu ajjuma lay doon euh, yamook ñaar fukki fan ak ñett ñett. ci weer wii léegi moom Abdourahmane. Mhm. nee na bésu le 23 bi dama fas yéene jox lépp sëriñ bi. Mhm. ma bëgg ko xamal ni aw lu may jox sëriñ bi damay delloo sëriñ bi. Mhm. ndax nag. lu ma jox moo fi ne ma ko koy delloo te delloo boobu moo war julli bu ne digganteem ak boroomam delloo boroomam la mu moom Cerno Abdourahmane Bari bi may fekk Europe la yóbboon ñëpp may fekk Europe lan moo taxoon ma jóge Italie dem fekk ko Paris ndax dama jógoon seeti sëriñ bu may ñaanal déedéet ndaxte bu dee tukki la tukki naa ci jamono boobu bu dee këyit la am naa ko ci jamono boobu bu dee kër la am naa ko ci jamono boobu dee soxna la am naa ko ci jamono boobu bu dee ay doom lay am naa ko ci jamono boobu bu dee oto la am naa ko ci jamono boobu kon te it lekkuma alalu jàmbur ñu war maa tëj may wuti sëriñ bu ma ñaanal kon lan moo ma yóbbu woon ci moom ba ma ko fekkee fa ma ko fekk ba ma yegsee dama ko ne sëriñ bi wut siwu dara jël siwu dara soxlawu ma dara yàlla rek moo ma indi dafa tëddoon rek mu jóg toog farampulaay mu ne ki ma àndaloon diw mu ne ko naam mu ne ko jëmm ju mel nii laay wër wala jëmm yu mel nii laay wër mu ne ko diw mu naa ah, mu ne ko jëmm yu mel nii ñoo tax ma bàyyi boggal bàyyi ndakaaru ñëw ci Europe bi mu ne ko jëmm ji nag fas naa yéene ànd ak moom ba faw fas naa ko yéene ñaanal ba àdduna bi yëg nii ñaanal naa ko fas naa ko yéene taxaw ba àdduna bi yëg ni taxaw naa ko mu xam nga képp ku ma ne danaa la ñaanal adduna bi yëg na ñaanal naa la kii nag par force la yàlla ko kon xam nga ni kooku moo joxe lépp léegi nag ñu koy delloo lépp fan ci Pikine gis nga nit ñi nañuy ràññee te dama ne boo bëggee tënku ci démb te fekke démb fekke woo ku fekke démb sa tey dana la réer te ñàkk xam baatu laa ilaha mooy tax moo lay tere xam ne ndekete la woon démb mooy tey ñàkk xam baatu laa ilaha illallah moo tax doo xam la woon démb mooy tey képp ku déglu waxtaanam dinga xam fi mu la bëgg joxoñ fan la waaye nag nit ñi foog ñu nite mhm. pour ñu mën a xam li muy joxoñ fi mu jëm fan la mhm. wax naa leen neleen leen jamono ba yàlla di wax ak borom xel yi mhm. jamono boobu passé nañ ko léegi jamono yàlla bi muy jëflanteeg borom xel yi la ku amul xel bokkoo parce que boo amul xel Seexu Tijaan yi dina toog sa wët nga nga koy wëri feneen soo amul xel xaadim rasul dana toog sa wet nga koy wëri feneen bu dee taalibi mu dégg boo amul xel képp koy woote woo rek yaa ngi koy wëri fekk mu ngi toog sa wet waaye laa ilaha illa boobu nga xam ne mooy seringue bi mu yor bu la ko nee duut nga xam ne dëgg dëgg dëgg lan mooy dëgg te ndekete dëgg mooy yàlla mu xamal la ni nag yàlla nag munoo ko xam fekk dëggoo mooy waxtaanam ci guddi fa nga dëggu soo ñëwee ci moom fa nga dëggu soo dëgguwul munoo jëriñoo foofu boo dëgguwul munoo jëriñoo ankay code bi waaw waaw code PIN bi quatre chiffres la. Mhm. pourtant nag moom moom lay doxee moom. Mhm. dafa ne sama ëtt bii jàng leen liggéey leen jaamu leen yàlla bu kenn bañ kenn. Mhm. loolu du code. code la du code. code la de. ah. <laughs> code kon ñeenti yooyu mu la mu la joxoñ. yow mi ñëw ci moom bu ci benn manqué war nga ko xam nga wuti ko. leen liggéey leen jaamu leen yàlla bu kenn bañ waaye ñeenti yooyu yëpp nag. ana ban moo ci munta ñàkk nga mun a mucc mooy bu kenn bañ kenn ndax ñàkk bañ bañante bi mooy tax nga jàng xam ñàkk bañante bi mooy tax nga wut am ñàkk bañante bi mooy tax nga jaamu yàlla du sell waaye kon tey ci jamono yi ñu toll ana ñooñu jamono bi nga xam ne xiiroo ak ŋaayoo mm-hmm. mana mana sama sama mm-hmm. mana mana sama sama yow kañ nga fi bay mën a ak sama. kañ nga fi bay mën a ak sama. waaye moom boo ñëwee ci moom foog nga am patience. foog nga dëggu. li ma leen li ma lépp loolu la ma fekkee Europe sama njaboot ñëpp ñu nga fa mu ne ma tegal lépp yow mii. doonoo kuy liggéey ñu lay fay yow liggéeyal yàlla yàlla fay la te li ma mën tey ba may liggéey mënuma ko li ma xam tey ba may liggéey xam nga ko fi ma nekk tey ba ma nekk ci Europe newu ma kon dama leen koy baaxee waaye la 23 le 23 le 23 réew mi xam ni lépp dëgg la. waaw. ku wér jërëjëf. ndekete nag lépp dëgg la. boo déggee xale yi di ko waxantu. dëgg lépp dëgg la. ndekete yoo lépp dëgg la. ndekete dëgg mooy yàlla. yàlla mooy dëgg. waaye na yàlla. bu ko defee allahu akbar allahu akbar. alhamdulilah. Abdourahmane. jërëjëf. ndax it. sànq bi may wax dama ni Pikine rek yam fa. ndekete man romb naa Pikine yàgg na. waaw romb naa Pikine yàgg na. kon waa Pikine. waa Bargny. waa Kër Massar. waa Bogal. waa Kaolack hmm. waa Guédiawaye ñëpp le 23. Hmm. le 23. la ñuy décoder buñ ci jógee réew mi. Hmm. jàmm ji ñu bëgg. ñu am ko par force. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. jógal taal nga taal. boobu dafa fekk nga tàkk ba pare. waaw wallaay wax dëgg jógal taal nga taal boobu dafa fekk nga tàkk ba pare. léegi nag comme taal buñ ko tuddee rek ana lan fa ñu jëm fay rek. fay te danañ ko fay nag. ci réew mi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah. بين الماء والتين والقوس والبرساق مختوم عليا تاب الإله بلا ريب وتسيب خلق الوجود الذي أمسى ولايته ربي وآدم بين الماء شهيدا بيت الولاية مصباح السلام ومتاع الكنوز وخدم كل إني خضر الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين ñaan gi nag sëriñ bi la ñuy ñaanal moom mi nga xam ne moo téye gaal ñun ñu nekk ci biir gaal bi nañ ko ñaanal yàlla mu gudd fan mucc bu boobaa ñun danañu gudd fan danañu mucc dëgg dañ ko ñaanal fii ñu toog ñii nee na ma xam du rabbi mën a mu ne ma ku ma lebal ma fay la. waaw. ma ne teg mu teewaat sama loxo ne ma xam nga ku ma gën a gaawee. ma mu ne ki nga xam ne lebal na ma te yëgul ne lebal na ma te yàkkamtiwul ma fay ko mu ne su ma ko fayee adduna bi yëpp di fay moo ma ko wax bokkuma ci ñi ngay xam ne dañu naan sëriñ bi nee na fekk newul mm-hmm. bokkuma ak mm-hmm. su ma la nee moo wax rek ci biir néeg la ma ko waxee. waaye dafa jot nag lu ñu doon wax ci biir néeg nag ñu génn ko ci biir. dafa jot. waxtu woowu jot na. waxtu wi nga xam ne ni jot na. gis nga kii ku yaakaar ni jege na ko rek yaa ngi nag sa bopp. dëgg la. fekk doomu aadama. 35 ans ba dugg 38 ans mu nekk Europe nga indi ko nga jaxase ko ci ciment bi ba mu tooy xepp oh, ko ku mën na def. ku mën na def. ku mën na def. ñun dañoo xam lu ñu am lam la. waaye nag alhamdulillah rabil alamin am na ñu ko xamal te ñooñu danañ ko xamal par force ndaxte nag mooy li ma wax sànq bëgg tënk ci démb te fekkee woo démb fekkee woo ku fekk démb te tey réer la ñuy def benn fàtte ñetti salaatul fàtte yàlla def juróom-ñeenti yoon ñu ñaanal ko yàlla fan mu gudd ak wér loolu